donc comme année bu nekk dañ koy def tey jii ñu ne woon aussi du ñu def dong benn bés mais dañ koy def ñaari bés pour suñu naataangoo yi nga xamante danañ jóge si yeneen dëkk yi yu sore yi bu ñu ñëwee au moins ñu nekk ak ñun bu ñu ñëwee ñu gën a saafonte wane suñu gëdd mais aussi ku si nekk xoolante ak sa morom pour wane ban taxawaay la ñu mun a am pour aar askan bi mais ban taxawaay la ñu am pour ñu wane ni ñun kat ay infirmiers ñu infirmiers yi nga xamante ne askan bi moo ko bëgg. waaw suñu doléance si fu ñu ko tënkee mooy il faut faudrait que tutelle bi dimbale ñu du ma wax dimbali ñu mais dimbale askan bi mais aussi dimbale boppam parce que bu fekkee ni mën nañoo recruter infirmier yu bëri bu boobaa ñun ñëpp ñoo si bénéficié wu. bu boobaa xëy na man dinaa tëdd na dinaa wax ni fële de buñ fa waxee ni paj bi defuñu ko bu baax dinaa ne infirmier boobu de war naa ko seetaan. mais tey jii bu ñu waxee faj bële ko bu baax damay lumay ñëk xalaat ah bo démé koku du infirmier parce que dañoo néw ci biir structure sanitaire benen bi il faudrait que ñu taxaw mettre en place kuréel buñu wax ordre bi pour ñu mëna protéger infirmier yi protéger askan bi mais aussi pour que ministère bi mëna teud touti nalaw parce que bu boba day jox lenn si gëddëm né am yeen saytul leen ma sen profession et du boba dinañ xam kan moy kan té ku def lénen aussi ñun suñu bop dinañ ko porter parce que ñun suñu bop ñokay koy sanctionné mais benen bi aussi moy formation bi tay ji buñu bëggé bëggee paj bi rafet buñu bëggé nit ñi faju bu baax buñu bëggé couverture ñu mëna ñak xalé yëp ñu mëna taxaw askan bi ci feebar yi yëpp di lalu il faudrait que ñu former infirmier yi autorité yi nee nañu d'accord nañu pour ubbi filière master yi ak doctorat mais dafa am lu ko lal lu ko lal mooy lan bu fekkee ne dañ ko ubbi te amuñu ay enseignants du dem en tey jii enseignants yi dañoo manqué NDSS boo fa demee ñi am master yëpp si beneen domaine la mais du domaine nu soins infirmiers donc ñooñu dañoo leen war a tàggat pour ñu am qualification normale de telle sorte que bu ñu waree former ñeneen yi si niveau boobu ñu bëgg ñu former leen si anam yu rafet. ñu armé formé leen si anam yu wóor de telle sorte que ñun suñu ñun tamit suñu naataangoo yu nekk si yeneen dëkk yi xam ne ñun ñii kat ñu ñu formé suñuy infirmier yi comme ñoom la te suñu infirmier yi am nañu valeur parce que mën nañu nekk nañu lu ñu leen yaakaare woon waaw parce que bu may wax loolu xëy na dama koy yóbbu si structure yi nga xamante ne ñooy employé infirmier yi naam dañuy wax ne xaalis bëri amul naam dañuy wax ni ñooñu dam nañu ba lu ñu waree fay nit ñi mënuñu ko te loolu bu amee benn bi ñooñu dañ leen wax ñu taxaw askan bi dañ leen wax ñu assurer fonctionnement bi mais aussi pour assurer fonctionnement bi il faut ñu am infirmier yu wóor mais infirmier yooyu boo ko buggee jëli te yow da ngay yaakaar ni sa sa am-am demewul noonu kon infirmier bi doo ko jox gëdd bu mu doon mooy lan est-ce que dañ ko noonu naka ngeen ko recruter nan lay liggéeyee si biir foofu te kooku tamit bu fekkee ni. Euh, doole pense ko niveau ko jox je pense bien tamit du le maximum de lui-même pour mën a manquement quelque part donc ce côté aussi ñoo en tout cas structure yi en tout cas autorité bi que ñu ay effort pour que infirmier bi nga xamante sanctionné diplôme buñ ko par rapport à compétence de telle sorte que dañ koy jox gëddam parce que ngay jël joxoo ko gëddëm tey jii mu def fa ñaari at ñeenti at juróomi at dina dina loru parce que ultérieurement dina màgget te bés bu màggetee bés bu demee toogi day am jafe-jafe ci wàllu payoor day am jafe-jafe pour sécurité famille famille am donc loolu bëgguñu ko moo tax ñu mun leen ñaax pour ñu wane il faut que ñu xoolaat ban anam la jëlee ñooñu si au de des